lan d'après li nga énuméré fii yëpp d'accord mais lan nga nangul euh, président Macky Sall ci pratiquement 12 ans yi nga xamante ni def na ko ci bopp réew mi. xam nga boo ñëwee nga ne Macky Sall def fi dara même yow doo crédible. ça c'est vrai parce que euh, nga bëgg ko nga bañ ko am na ay problèmes yi nga xam ne réglé na ko tey ñu ngi nii di def suñu émission courant coupé Macky Sall ba muy jot ci réew mi boobu mënoo toog 30 minutes wala une heure de temps bi nga xam ne courant coupé wu. Sénégal coupé rek. tey courant bu coupé. Mhm. boo moytu sax du mat une minute balaa ngaa ne courant coupé na sax mu ñëwaat donc loolu il faut lui reconnaître mhm. tey Macky Sall am na ay infrastructures yi nga xam ne développé na ko. bi nga xam ne day résoudre problème mobilité kooku nga bëgg ko nga bañ ko da nga ko koy nangul mhm. parce que réalisation la euh, voilà nit du suul jëf ko on dit euh, Macky Sall am na yeneen yu mu initié mhm. muy problème mu bourse de sécurité familiale maanaam jël yenn njaboot yi nga xam ne seen loxo jotul seen ndiggu ginnaaw ne ñoom foog ñu leen di jox dara mhm. couverture maladie universelle yooyu yéene bu baax la ndam na mu ko defee mhm. baaxut parce que man bu ma ñëwee bu soobee yàlla à partir du 2 avril danaa ko soppi <laughs> ba Macky Sall yëg ne nii la waroon a demee te dana ma ne waaw góor a waay moom mooy lan moom mooy bourse de sécurité sociale bu ñu dee dañuy wax te ñu wax te yàlla tax wala couverture maladie universelle ñun ñi toog fii est-ce que am na kenn ki nga xam ne mën na fëgg dënam ne lii mooy conditions yi wala lii mooy critères yi pour nga jaar ci boo ci jaaree da ciy jot sûr wala buñ nga ko bañalee këyit bii nga war a jot ñu notifier la ko ëttu àttekaay bii nga ko war a jooytu amut dañu waxante dëgg mhm. ña ko am la plupart du temps dañ ko am parce que xam nañ diw moo jege diw moo jege diw ba yegg ci régime bi voilà donc boo tax ma jàpp ni bu ñu ñëwee ne parti républicain la moom di woote alliance pour la république ñooñu république lu ko lal moom mooy égalité des chances yemale